dama bëgg aajo yëpp faju dana leen jox ñaan gi ndax jamono jiñ tollu ni nan nit ki ñëwul ma defal la sa dafa xew wi barke alquran nan nit ki ñëwul ma defal la wala demal ci sëñ diw mu bindal la nangam dafa xew wi barke alquran dafa xew wi man dama japp ne fiñ tun ni kep ko xamanteni ni rek manam tawat miñ ki sa bir rek toppal video tegtal ak jàmmoo nga xol jëlal video ak jàmmoo nga tas loo ci bëgg rek mën nga koo am jur ngay dem ci benn sëriñ mais dafa fekk ne Sénégal dafa yàkkamti àdduna ba nga xam ne même tegtal bi muy def sax au lieu mu renouveler ko benn deux ou trois fois déedéet def naa ko benn yoon rek mu xaw a tane bàyyi naa déedéet da ngay renouveler déglu leen bu baax ñaan gi nga xam ne bépp aajo lay faj te aajo joo ci ñaan yàlla suñu borom faj ko ci le lendemain mu ne da ngay jël benn bool wala bu la neexee sax muy lekkat gu mag nga def ci ndox wala siwo nga def ci ndox mu sell te set mu la mën a sang juróom-ñaari doomi guro yu weex juróom-ñaari sondel yu weex suuratu yaasin soo ko dee jàng alaaji Amadou Papi Diagne naa lay jaar boo eggee ci mubiin danga naan tekk taxaw ñaan sa soxla téye guro gi ak sondel bi ñaan sa soxla tafli ko ci jël gure gi tëmbal ko ci ndox ma jël sondol bi nag tas almet gi taal samp ko te bu mu fay bu fayee rek say mbir fay lu leer nag laa wax nga di ko def noonu topp mubiini ba juróom-ñaari mubiini suuratu yaasin jeex sondeel yi jeex gure yi jeex nga jël ko ndox moomee mi ànd ak gure yi nga teg ko ci kaw foo xam ne dara du ko tiim ba asamaan set ci kàttanu suñu borom boo xëyee da ngay fekk sondeel yi yëpp takk ba ruy su ko defee ruyit yooyu da nga koy teggi tëmbal ko ci ndox mi ba mat ay quelques minutes nga naan ci ba man di daal di sangoo ndox ma nag <laughs> bu leen fàtte ne nag euh, surdu yaasin ngeen di jàng bu ngeen di sangu bu ngeen bu leen bu leen bu leen def bu leen def ngeen baal ma ci ton bi tax la laa ko mën a waxee pour ñëpp comprendre ko bu leen def taatu neen ndax baaxut alquranul karim képp ku koy sangoo di def taatu neen dung say mbir du baax day bon rek day bon du baax mukk alquran du laal ay awra wóor baaxut da wut calson bu dee góor bu dee jigéen gi wut benn yaa xam sax fiso wala làggab loo sol nga xam ne day ëmb sa awra nga sangu noonu lekk di sangoo euh, saafara mais saafara doo sangoo rek di raxas say awra yëpp muy tooy loolu baaxut wóorut de yaakaar naa ni ma ko waxee leer na enregistré ngeen ko ana yaakaar naa suñu isaar enregistré na ko leer a leer waaw suñu na ko ba mu leer a leer ok bu hmm. ko munul ah nga xool ku ragal yàlla man am naa ci kenn ku baax koo xam ne moom dala koy defal rek nga gis ko gis ko jaxaram pour bañ kenn di leen nax da ngeen may woo walla ngeen woo Isaar walla ngeen woo Arda caw ma boole leen ak ku leen ko defal ci ku ragal yàlla koo xam ne du ngeen ci am benn jafe-jafe waaw kooku rek numéro maa ko yore kooku su ma ko santee moom dana leen ko defal waaw ci kàttanu yàlla. ndax am na jot bi ndax mbir bu ñu naxante jot mooy tax nga mën koo def waaye am na ci par exemple dynamique booy toll bu la ki joxee ay ñaan sax wallaay doo ko defal parce que jot bi nga ko maanaam àq bi nga ko war a jox day tax ba ñaan googu du mën a nangu